asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di def benn direct bu gàtt rek jëmale ko ci li nga xamante ni mooy situation bi comme niñ ko gisee dégg nañ résultat yi nga xamante ni bettul kenn euh, résultat provisoire yi nga xamante ni juge bi génne na ko <coughs> te ko doon ñu ko doon xaar amuñ ci benn bettange li may jiital rek mooy sénégalais yi daal gis naa ni am na ci ñu bari du bizarrement euh, ñu am taxawaay boo xam ni xam naa ni buñ ci mënee génn moo gën loolu nag sama xalaat la ndax processus électoral bi képp ku ko xool du début jusqu'à la fin gis nga li nga xamante ni moo ci am te ñu ñu ci nekkoon tamit gis nañ ko Ablaye Wade waxu fi waxu fi lu bees daf doon ñëw rek di confirmer ay situation yoo xamante ni gisoon nañ ko li ci am mooy ñu bëri maa ngi nag félicité ñi nga xamante ni euh, PDS lañu bokk mais ñu jàpp ci liggéey bi nekk ci du début jusqu'à la fin ba pare jël position voté parce que man euh, dama bokk ci ñi nga xam ni gëwuma ni élection yi boycotté moo nekkoon solution bi lu tax gëwuma loolu mooy tey bu ñëpp boycotté woon Macky Sall du tax muy repousser élection mosu leen a gis Macky Sall ñu xëccoog moom ba am ndam ci kawam kon tamit bu ñëpp boycotté woon da ngay gis ni day dem élection organiser ko parce que loolu nit ñi dañ ko dul bàyyi xel mais élection benn nit dafay am. Senghor fal nañ ko fi ba tàyyi élection benn nit moom kese candidat à sa propre succession parce que beneen candidat remplirul situation bi mais dañuy def élection ñu teg fa bulletin am nit ñi ñëw votel ko sénégalais yi buñ boycotté woon Macky Sall day def élection benn nit gagné te su gañee amul kenn ku sañ a taxaw naan ko mënoo fee toog maanaam situation bii ñuy nekk tey moom la ñuy nekk rek donc amul changement comme que xam nga ni boo boycotté mu dem élection. soo demee élection mu dem élection mais dangay ngay dem élection te soo demee élection nga prouver ko ni ko sénégalais yi majoritairement ànduñoo ak moom te loolu ak lu nit mën a wax moom la opposition bi moom la candidat yi réussir tey yomb na nag nit toog naan waaw lii lépp gisoon nañ ko processus bi waxoon nañ leen ko bu ngeen demee tëral mu te bàyyil mu gis loolu benn ndam nekku ci xam nga lu tax mooy bëri na ci ñoo xamante ni tey bi loolu di am ñi ngi toog seen kër yi boo leen woowee duñ génn dañuy jàpp seen jàmbur naan nañ toog moom lu mën di def daal baax na nañ denc suñu carte ba bis ba te ñun ñëpp waxoon nañ leen ni Sénégal situation bi mu nekk nii amul kenn kuy yaakaar ni di nga dem ba ci urne yi di fa mën a exprimer wu ni ñu ko bëggee parce que Macky Sall loolu la xam dañuy denc suñ carte ba bis ba dina fexe ba bis ba suñ carte yi du du wax li li nga xamante ni du du firndeel li nga xamante ni mooy ressenti peuple bi mais ñun amoon nañ espoir on gëm-gëm boobu man gëm-gëm boobu laay doxee mooy euh, duñ jékki-jékki ni rek jóg jàpp ni dañoo bëgg a changer pouvoir parce que neexuñu man je damay respecter nit ñi seen position moo tax du ma fi nekk sax di xas ñi votel Macky Sall parce que loolu buñ ko defee euh, branche biñ toog maanaam euh, fii ñu toog moom la ñuy dagg moom la ñuy xotti euh, ñu daanu donc li nga xamante ni ci lañ sukkandiku mooy démocratie ba ñu defee élection Macky Sall bokk ci lañ ñu war a nangu ni am nay sénégalais yoo xam ne dañ koy voteel pour seeni raison nag pour seeni raison te nag nit ki mënoo koo xëcc ne ko par force man li ma gis ni mooy samay raison moo gën a baax say yos loolu mënul nekk parce que àdduna bi kenn xam nga kenn ku ne sa magum bopp nga kenn yilifu la donc loolu il faut nit ñi respecter ko d'abord ñi ma ki Sall nañ leen bàyyi ñu voteel ki ñu bëgg a voteel parce que tamit Ablaye Wade mii tey Ablaye Wade warul woon a nekk candidat leen lañ waxoon da ngeen ko fàtte maanaam ki ñu jàppoon du nekk candidat te bi ñu defee premier tour mais moom moo gagné moo ëppale boo jëlee sénégalais yi ni ñu séddali ko ci candidat yi Ablaye Wade moo ëppale ay sénégalais yu far moom te dañ ñëwoon kooku warta nekk sax candidat loolu mooy la réalité mooy ku nekk président tey toujours même buñ la dee gagné te moo mos am Sénégal mais dangay ngay premier tour lii warta nangu kay li jaaduwul mooy ni ñu ñoom organiser woo ba fexe ba ni Sénégal yi exprimé wu ñoom ñu fexe ba du feeñ ci urne yi te loolu mooy li nga xam ni moom lañ dund tey te même malgré ça vous avez vu fépp foo xamante ni bastion électoral traditionnel la mooy fi ñu daan gagné rek gagné Sénégal mais foofu euh, opposition bi moo gagné Macky Sall am na dëkk yoo xam ni sax opposition bi soxlawuñ dajale seen voix sax pour gagné Macky Sall benn candidat moo ko ciy gagné jël leen yëpp département de Mbacké département de Dakar ya fa nekk yëpp Pikine Guédiawaye nga boole am na département yoo xam ni diaspora bi Sonko kese gagné na ko nga boole li li fi waa opposition bi yëpp am donc ak Ziguinchor département aussi léegi. kon sénégalais yi bu kenn wax ni sénégalais yi voté wuñ pour changer sénégalais yi voté nañ bëgg changement te liñ li ñu am aujourd'hui li ñu am ci vote firndeel na ni sénégalais yi doyal nañu ci Macky Sall parce que seen vote yëpp boo ko boo ko calculer ñoom wane nañ seen far ci opposition bi benn zone moo am problème te mooy noor bi te ñëpp gis nañ la fa xew lu ne fàng nag kenn du ko jeex dégg ngeen tamit li nga xamante ni mandataire bi wax na ko ci biti taxaw na wax ko kon problème bi du problème mu sénégalais yi ñoo bëggaat Macky Sall loolu nañ bañ a dugg ci erreur boobu parce que ba tey dañoo nekkaat rek ci stratégie de xaajaloo boobu ñun waa diaspora ñun ñoo voteel majoritairement euh, Sonko ak opposition bi mais bu mu tax ñu daal di nag ne nañ bàyyi sénégalais yi noonu loolu du taxawaay c'est-à-dire nit ñi dañoo manqué ténacité man loolu laa seetlu mooy. gis nga nit da nga koy tane ci dara mais nga toog di muñ di ko convaincre ndànk-ndànk léeg-léeg da ngay taxaw ak nit mais mu taxaw ci position boo xam ni yow doo xam lii naka la mën a duggee ci boppam te dangay ngay comprendre ne kii dans deux trois jours il va sortir de mais da ngay muñ def ak moom ndànk parce que tamit boo boo génnee wala nga jàng lu nit jàngul wala nga génn gis lu nit gisul forcément yaa koy gën a yaa koy gën a ëpp euh, ubbeeku buy tax nga comprendre yenn affaire te du ko comprendre loolu da ngay naxanteeg nit ñi waxtaan ak ñoom ndànk-ndànk kon bu waa diaspora di stigmatiser waa Sénégal naan bëgguñu lu baax nangam nangam mu kii noonu peut-être mën nga am tuuti frustration mais loolu bu ñu koy wax sax day mel ni ñoom ñëpp danoo votel Macky Sall mais Macky Sall gañewul ci bastion électoral yi dañoo waxante dëgg Macky Sall gañewul ci bastion électoral yi zone yi nga xamante ni kenn mënu koo sàcc daal jour élection gis ngeen ko mu leer naññ opposition bi gañe ko loolu c'est très clair fi clairul fi lëndëm mooy noor bi gis ngeen la fa xew il y a eu du loolu nag nit ñi teg nañ ci seen bët après c'est aux gens de prendre leur responsabilité euh, gis nga bu ñu neexee nag kenn ku nekk toog di sukkandiku ci PV naan way il faut être bon euh, il faut pas être mauvais perdant il faut être fair play nangam nangam man jàpp naa ni te loolu nit ñi dañ koy xaw a ba fàtte gis nga man de personnel la gis nga nit ñi nekk ci opposition bi wala ñu am engagement politique bëri na ci ñoo xam ni sénégalais yi doxi seen soxla nekk ci seen yëfi bopp amuñu lenn luñ leen mën a yey ci seen comportement personnel parce que li ñuy bañ ñooñu ñi toog seen kër engagé wuñ li ñuy bañ li ñuy jombale lépp ay nit dañ koy jombale nekk di nekk am engagement politique parce que engagement politique bi fi mu ñu fi mu toll ñenn ñi dañ dafa mel ni nit ñi dañ ko desee bàyyi xel du ay affaire kii moo jiitu kii moo war jiitu dañoo gëm ni sunu situation réew ni mu mel fii mu toll képp koo xamante ni mën nga ci dara te defoo ko boo demee yowmal xiyaam danañ la ko laaj dañoo jàpp ni réew mi nii muy mel nii te nit ñi am ci pexe ëpp na ngay toog te doo ci engagé wu loolu nag dafa metti parce que boo ko defee dañ lay taqal danañ la saaga danañ la lu ne danañ la ko wax ku la warta yab ku ne dana la yab kenn ku ne bu toogoon sa ruq di def li nga war a def kese kenn am na ñoo xam ni bu dul woon politique kenn du leen yàpp kenn du leen yab waaye politique moo tax te li ko waral mooy lenn réew mi mënuñ koo changer lii ñuy def yëpp gis ngeen ko action sociale def lii yónnee xaalis yooyu yëpp ONG à gauche à association yooyu yëpp dadul solution Sénégal man damaa xool ba xool xam ni solution Sénégal lenn la mooy politique engagé wu parce que foofu la ñuy jëlee décision yi soo fi lëkkaloo ko ONG wala nga nekk fi di liggéey da ngay am projet bu baax bëgg koo yóbbu Sénégal ay nit no soit ñu foqati ko ceew wala ñu bloqué la da gis tamit ay nit ñoo xam ni jombale nañ seen bopp politique nee nañ action sociale yi moom la ñuy def waaye da ngay gis ñu def action sociale ba mu yàgg ñu sukkandiku ci li ñu am noonu ci action sociale bi viré ji ci politique bi te suñ ñëwee parfois ils on des bilans désastreux ils ont des bilans désastreux bëgguma tudd euh, kenn mais ci acteur politique yi waa Mbàkke mën naa leen a junj loolu leen junjee Mbàkke danañ xam li may wax kon affaire bi wiiri wiiri jaari ndaari la gannaaw yow da nga naan du mu politique te boo xoolee actes yi ngay pose yëpp c'est des actes da ngaa da nga engagé wul da nga seetaan sa askan te mënoon ci dara soit da ngaa def loolu soit da ngay wane ni faru fenn mais en réalité da ngaa am foofar mais da ko doo ko ñemee wax dangay taxaw di wane ni Sénégal bu kenn nangoo de nangam ay ñii politique ana seen doom ci ci terrain politique bi te pourtant bi Sénégal di xeex 2012 kenn gisul doomu Macky Sall loolu Baba Aïdara mi ngi koy fàttali kenn gisul doomu Macky sàll te tey moo nekk président ay nit dañ nit ñi faatu ñëpp. ñu ci bëri kenn seq ci woon ak dara pouvoir Macky Sall te pourtant ñooñu ñoo tax tey Macky Sall toog fi donc ndax dañuy xeex loolu yëpp sacrifice yooyu yëpp am fi ñu amaat lu mel nii mu encore pire parce que lépp lu Abdoulaye Wade lu mu doon def ba ñu ko ciy mere tey jii double bi wala triple bi la def ndax Abdoulaye Wade sax mënoon nga dem ba tudd affaire doomam te loolu on peut avoir sax explication koo xam ni dem na ba wóolootul kenn lépp lu jàpp ni bu ko defee. Euh, dénkee kenn mu war ko ci mu jàpp ni kon finalement doom rek ko ci doy mu def ko mën nga ko comprendre parce que il y aussi d'autres enjeux te moom ñu ci bari ci euh, tubaab yi ànduñu woon ak moom loolu moom ñëpp war nañ ko xam te nangu ko te looloo taxoon tamit jëlee ko fi yomb te ñoom it jàppoon nañ ci pouvoiru Macky Sall euh, ba mu nekkee opposition pour mu mën a ñëw te loolu bi Macky Sall yéegee la ko ñu bëri comprendre ni kat dañ doon xeex nii mais Macky Sall moom am nañu ko ngemboon à côté kon loolu lépp kon ñun dañ koo def tey pour toogaat ci situation bii ñu nekk lii lépp boo gisee ma laytaaye ko li ma bëgg a wax li may wax nii dafa am solo parce que affaire bi du affaire PV rek affaire bi du affaire affaire soyez fair play ne soyez pas mauvais perdant mais affaire bi affaire situation Sénégal la loo xamante ni gis ngeen.